kenn jaralu ma nag wax loolu neex man Ousmane Sonko mosuma ko gis bien que wax nañ sa président Macky Sall dem nañ ba wax ko ñooñu ma la doon wax noonu gëmloo ko ne ko man maan ak sama jeunes yi ñoo nekk ci stratégie de communication derrière Ousmane Sonko en 2019 billaay te mosuma ko gis. ah bon wallaay. Mimi Touré ñëw ba sama kër wax ma ko ñoom ñi fi nekk ñëpp ma ko ñoom ñu oote réunion di ma pexeel ci loolu te man mosuma ko gis ñu ne man maa nekk derrière te man mosuma ko xaw ma sax mais war nañ ko jox opportunité comme ñëpp. mais ça ça vous colle la peau parce que man am na ñu ma naan. bien sûr euh, da nekk d' ci offensive de charme. Euh, vis-à-vis de l'électorat de de bëgg nga yaa yaa ngi yaa ngi séentu. séentu quoi. yaa ngi séentu électorat Pastef. non man toolu ma si ay séentu kenn man xam nga lu ma indi li ma gëm ne man mooy defar suma réew. loolu nekk ma ci politique di ko def dama ko jëfee ba pare bi ma ko jëfee ànd ak ñi may liggéeyal. mais nekkoo en connexion en discussion euh, avec les gens de PASTEF. nekkoo amoo benn contact ak ñoom duguma ci ay dil li may wax dafa leer ñëpp mën ko dégg dama ma mu leer ñëpp mën ko dégg te proposé mu dama ko jëfee ba pare loolu nag ku ci ànd ak li may liggéeyal man ubbi naa la pour ñu defal suñu réew parce que dama gëm ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko war a jàpp pour liggéey ko économiquement